asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 6 février 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la wala journal bi nga xam ne moo di record bu dee yëglekaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb la moom dafa xëy nag ñëw ci Gris Bordeaux ak carrière am ak loo xam ne nii daal yëglikaay bi def na ko ci moom tey di ab taxaw seetlu boo xam ne daal fu yéene lépp li nga xam ne ni daal moo di carrière u Gris Bordeaux la ko commencé ci 1997 combat ba nga xam ne nii njëkk na koo bëre ba tey jinu nekk fi nga xam ne nii fi la toll ci làmb mu mel ni ki nag yëglikaay bi mu ngi koy dànkaaf wala boog mu mel ni ki daal nee na ko saison bi juróom benn weer a teemu tëj te Gris Bordeaux boobu ba tey amagul combat te nag moo tax sunu làmb di dànkaafu ne Gris mii mbaadu dem ci septième septième saison boo xam ne daal ba indépendance lay doon doon ci moom mu mel ni ki daal loolu fi mu nekk nii moom la yëglikaay bi ñëw ci itam carrière am boo xam ne ñëw na ci vingt-trois ans de carrière Gris def na ko ci làmb ji am vingt-deux combats onze victoires verdict ñaari combat yoo xam ne daal ndam demu ca ndam dikku ca ay sans verdict la bokk loolu yëglikaay bi xëy tey ñëw wax ñu ko ci Gris Bordeaux mu mel ni ki nag Gris Bordeaux mooma deesu ko sori ndax écrém ba mu bokk moom daa mel ni am na koo xam ne nii wala leneen loo xam ne nii xees na seetluwaat ko ca ka ko def nag moo di abu Ndour ci journal bi nga xam ne moo di record maanaam écrit daal abu daa jàpp ne day mu nga jëm ca benn tournante boo xam ne daal bu décisif boo xam ne moo leen di xaar yëglikaay bi wala boog ci gëstoob Abou Ndour mu ngi am na défi combat yoo xam ne ñoo koy xaar ngir mu am daal bokk na ci li koy xaar lagros moom eh, blessure moo ko génne ca course ba mu mel ni moom itam ay mbiram lëndam na forza itam am na leneen loo xam ne ah moom maanaam mooy ay jafe-jafeem maanaam daal régularité ci wàllum làmb daal wala wàllum komba xaw na koo jafe Papa Sow wan leen ginnaaw moo tax yëglikaay bi jàppe ne daal tournante bu décisif la pour écurie Fass Abou Ndour a xëy ñëw wax ñu lool ka nga xam ne nii nag moom moo di Papa Sow moom ba tey ci yëglikaay boobu nga xam ne moo di record Papa daal ne na moom daal li leer ba leer donte am na ay yoo xam ne bañ génn ci écurie ba dañu am ay jafe waaye moom daa jàpp ne day moom nag du la genre yooyu ndax man Papa Sow Papa ne moom Papa daal aayul gaaf tey suba waxi noppi loolu mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di record mel ni ki nag xaw ma ay gaaf wala ñàkk aay gaaf daal waaye li leer ba leer moom ki nga xam ne nii day moom mooy papat sow am na koo xam ne tey mu nga xëy di ko défendre muy ki nga xam ne moo di Papa Waly Ndaw Papa Waly Ndaw nag ne nañ ancien journaliste la woon bu nekkoon fa nga xam ne moo doon ci sunu làmb mu nga xëy di wax ne na Papa Sow li ñu ko def mérito wu ko tey suba waxi noppi ndax daa jàpp ne day du kees war a taxawoon noonu ndax ne na Papa Sow doomi Fass la Fass la juddoo waaye nag li ñu ko def moom du lu mu mérito waaye nag ak lu mu metti metti ne na moom jël na ko xel mu dal ndax Papa Sow ku ne xam ne ne nit la koo xam ne ni ku teg ay mbiram ci yoon la Papa Waly Ndaw mooy wax ba tey waaye ba tey moom génnul parcelle de ndax ñëw na ci Modou Lo ne na daal roi des arènes bi moom li leer ba leer ne na fa mu départ ci lu ci dara la départ maanaam koo xam ne ba ngay départ amoo dara yore woon dara di dawal ay saret ak takkale ba tey mu nekk roi des arènes moo tax mu jàpp ne kun Modou li mu am mérito na ko ndax nag lu mu liggéey la xaar ko fa mu metti mu muñ ba tax tey mu ñëw fii nga xam ne fa la nekk ci wàllum làmb Papa Waly Ndaw moo xëy ba tey di wax lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne nii tamit xëy nañ gis ko ci yëglikaay bi mu ki nga xam ne nii moom moo di Thierno Ka Thierno Ka moom nee lan moo waral coow li lu war coow li fi mu nekk nii ba tax gaa yi di amay xel ñaar ak ay jàppal bàyyi ndax ay caution yoo xam ne yees war a wax la wala ay interdiction yoo xam ne daal lees tere la ne na loolu lan moo ci jar coow mu mel ni nag Matar Ba moom buñ delloo ci record ba tey Abou Ndour ak ñuy xamal daal ministre des sports ci xalimaam nekk daal moom mu ngay dànkaafu mbëri këri nañuy xel di bëre lu baree bari moo gën a wóor maanaam buñ la fayes tuut jàpp jote nga bëre ne na moom bu nekkoon mbër moom bëre dina ko xel di def waaye ndogali seen saye moom moom itam ne loola daal du a da ngay dem nga laaj ko ñi nga xam ne moom li leer ba leer ay adversaire am daal nee na cinq lutteurs yi wala juróomi mbër yi moom fa la ko gis muy tafaatin muy VIP daal la jàpp ne foofee daal fa la adversaire am nekk ak lu ca mënti xew tafaa xëy na foofu tamit wax fa lu mel ni kii noonu leneen loo xam ne tamit dañ koy gis muy écrit bi nga xam ne nii daal mu di écrit plateau génne ba ñu leen génne ci école le bàyyi leen ca mbedd ma daa mel ni naqari na leen ba ka nga xam ne nii nag moo ko jiite mu ngay wax di Moussa Wane xëy na daal tey di wax lu mel ni ki noonu waaye keneen koo xam ne nii moom mu ngay dànkaafu ki nga xam ne moo di adversaire am mooy Alioune Seye 2 ne na day ñàkk jariñu tere nu mënumaa tere nelaw man Alioune Seye ba yandoor damay nelaw ba yandoor ba gént sax su ma neexee ne na ñàkk jariñu xalaatuma ko tey suba waxi noppi mu mel ni ki père Max Mbargane ñëw na moom itam di wax ca combat booba nee na li leer ba leer daal Alioune Seye ci côté technique moom moo ëpp technique ndax nag jàpp na ne Alioune mbër mu mag la xanaa carrière am kay moo xaw a retard waaye jàpp na ne muy lag de Guiers rek ñeneen ñu mel ni ki ñoom ñu ci baree baree bari ci côté maanaam jànge nañu fa bëre moo tax mu jàpp ne moo ëpp technique waaye nag teewul tànkaafu na ko dana ko ñàkk jariñu ma mbër la moo xam ne mu am courage la te itam combat bu ñu yomb wax ne outsider la ca bu ñëwee yomb na caa def affaire dal di cay génn mu mel ni kon Père Max daal ku ci ne ci ñoom ñaar am na lu mu lay dénk ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye leneen loo xam ne nii moom mu ngi ci yëglikaay bi muy ka nga xam ne nag moom moo di ki nga xam ne nii mooy doomi parcelle ba di prince ak combat ba mun pour le 13 avril face à face ba nga xam ne nag moo ca war am le avril avril ca Dakar Arena ca li nga xam ne nii moo di concert Pape Diouf ba daal fa la ko Prince fas yéene yóbbu defe ko fa muy loo xam ne nii daal kon jar naa bàyyi xel yëglikaay bi xëy ñëw tey dina ko wax waaye keneen koo xam ne nii tamit mbër la nekk ci làmb ji tuddoon Iba Jam ñaajo ñu ne déet na waaye ca lay yem mu dindi booba ne booba safu ko daal di def dab daan ñu ne ko ca ngay yem mu ne boobu ba tey safadi na ko dal di indi nag léegi Wally Seck dab daan nee na jóge na ca Iba ñaajo dindi na dab daan ja léegi na Wally Seck la boppam lam dafa ma ne ko yaayey tudde sa bopp Wally Seck moom yaakaar naa yàgg mar ngaañ waru ci am de ndax Wally sekk rek dong ah Iba jam ñaajoo ah dab daan léegi Wally sekk la kon loolu la wax yaayey moo ko waa Leewtoo TV ne nuyu leen gëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de bi ñu ànd ak yéen si jàngatu arène Babacar maa lay nuyu di la ziar naan sa carax rafet na sa tubéy rafet na sa chemise rafet na <laughs> ma lay fay ah di leen nuyu di nuyu ñëpp ñu ngi suivre waa simis bi merci simis bi day saal fay fa jaar borom merci ci leen carax yi tamit benn waaye ma ko jox bër gi démb rek xam ma du mën a ñàkk soppe yi di nuyu ñëpp waaw simis bi comme ni nga ko waxee nice na macha allah ko jaajëf yow itam waaw. waaw kan ñëw nag si sunu lam sunu lam nee nañu euh, weer bi euh, saison de lutte bi juróom-benn weer rek moo des te Gris Bordeaux ba léegi amagul combat ak tamit di jàppandi nag xanaa dafay waaj a dem si septième saison blanche am si carrière am ginnaaw bu mu ko defee 97 98 2009 ak 2010. ah waaw septième saison blanche day baaxul moom ak loo ci mën a dégg moom.

ci yem duñ leen ko souhaité li am solo nag mooy c'est dañ leen di waxaat à chaque instant que ne jamono nu mu dikkee des fois da ngay a ànd ak moom ci noonu quoi actuellement nii làmb ku ne xam na ne ci kaw VIP ci kaw ñoom fa ñu nekk ñoom mbër yooyu ay Gris Bordeaux ay Modou Lo ki Balla Gaye ki Eumeu am na jafe-jafe yu fa am pour ñu seen combat yi taxaw li koy waral di def nag xëy na mooy ñi daan accompagner promoteurs yi doole boobu moo fi xaw a fayeeku dara bëri est-ce que gënte wóor bañ a bëri toog nii te am lu bëree bëri lu la war te ñoom mbër yu mag yooyu li leen war dafa bëri trop trop boo xoolee ñi leen yaakaar ci lépp dafa bëri waaw te ku ñu defalul nga xarab leen ndax xam nga Sénégal waaw boobu dem si Thierno Ka premier vice président de chargé de la lutte avec frappe moom nag dafa xëy nag mel ni kuy tontu promoteur yi nan euh, caution bi lu ñuy laaj caution bi dafa bëreek yooyu noonu moom daal nee na amul problème amul nee na xamul tax ñoom ni affolé wu parce que nee na euh, soo gisee nu laaj caution boobu noonu c'est pour rek pour nu réglementer li nga xam ni mooy face à face yi te nee na face à face dafa demoon ba nekk benn genre anarchie wax na tamit si drapeau chef de l'état bi nee na drapeau na yaakaar dinañ ko organiser cinq 6 7 8 fee nga xam ne moom may kaw mooy Kaolack Babacar. waaw Thierno Ka moo xëy tey wax loolu ah muy lu jar bàyyi xel parce que itam moom su waxee yaakaar naa ne war naa wax comme li ma wax war na waa parce que moo yore sax sañ wax ga ca CNG yaakaar naa ah li am solo nag mooy jaaxle mu warata am comme noonu mu ko waxee la rek xay na régal la yu ñu indi parce que tamit pour lan la pour gën a euh, defar affaire yi mu gën a jaar ci yoon

oto ba ak lépp ci yem kër ga ak lépp anarchie baaxut lu mu doon nañ ko utal ay régal teg ko ci ay sart yoo xam ne ni su juree njariñ la muy jur njariñ lay doon daal naa bi tamit dal na ki nga xam ne mooy Pape li nga xam ne Papa Sow waa Fass teg nañ ko ko nee na Papa Sow mérité wu loolu parce la juddoo fa la màggee foofu la yoroo nee na nag euh, combat Papa ak ki nga xam ne mooy Modou Lo combat boobu mu amee woon moom noonu loolu daf ko métitlu parce que noo bokk parcelle mi ngi wax tamit nee moom en que reporter musu woon nangu dem di euh, couvrir lamb yi nga xam ni ni waa Fass moom la ñuy kii waa Parcelles moom la ñuy bëre ndax nee na da koy yàqal liggéeyam benn ñaar bëggul wane féeteem ndax moom reporter la Babacar. waaw tey daal moom jàpp na ne Papa Sow lañ ko def daa jàpp ne warul ta demee noonu parce que doomu faas la ah waaw loolu daal li am solo mooy comme li xasam am na ba pare ah jeex na. waaw olof da ne dañ ne bu olof ne na bu ndox tuura ñu ne an baax a des maanaam rooti gi mooy sañ ci nam écrim am solo mooy lañ ko def waruñu ko ko def war nañ ko ko def ak lépp lu ci am rek te jaarul yaakaar naa kenn du ko rafetlu ci côté bu mu mën a amee muy ci côté papa muy ci côté ñam ko seqaloon mais li ci des mooy ñu rafetal seen diggante léegi daal moo ci des yaakaar naa tamit fi mu nekk nii képp ku ci wax rek war nga a woo ñoom ñaar ñëpp ci côté boobu ndax tiiraay ma baaxul xëccoo amul benn njariñ yaa ngi dégg amul benn sens li am am na génn na fa sanc na écrit am nañu mu àndal ti liggéey nañ ko ñaanal yàlla loola mu ne mu gis ca résultat ñaanal yàlla tamit fa mu jógee mu nag résultat mais ku ci ne ci Sénégal ca la nga di ca yëngutu ñu yàlla nga am ci résultat te ñu fexe rek lu gën a seen diggante pour man moo ëppati solo fi nekk nii ndax nettali xuloo xuloo rek lay jur ndey Kumba Fall ñeneen ñi nga xam te ne ñoom soxla nañu ndimbal mooy ñi nga xam ne mooy mbër yi doon entraîné école plateau si si si medd bi. waaw loolu lépp li ma la wax xam nga fi mu nekk nii affaire fa doy waar làmb moom mooy kumba amul ndey parce que tax mooy kumba amul ndey làmbay loo xam ne ah boo ko waxee ñu ne nangam la waaye bëri na ñoo xam ne nii moom làmb daf leen di déranger te pourtant suñu cosaan la noo ko moom am na ñoo xam ne tey ñu ngay défendre yeneen discipline yoo xam ne ni nun moomuñu ko dañ koo jëggaani ci ay réew it nasaraan yooyu xëy na la ñuy gën a jox cër man nag li ma xam mooy ay sénégalais lañu te bu ñu complexe complexe mooy lan li nga moom te dara newu ci aayul ñu tera la koo sàmm suñu làmb noo ko moom nañ ko sàmm ba mu saf te dañ koy sàmm xëy na nag ku la dàqe feneen ku lu génne ci kër ci kër la dugal écrit plateau du ñàkk a dem entraîner fa parce liggéey seen liggéey yaa ngi dégg làmb moom yaakaar naa ne ah li ma wax rek mooy kumbal ndey waaye ñun ñi ci de nag nañ ko défendre li tax suul temps ñu war a gën a rafetal suñu ay kàddu ak suñu comportement ci làmb mooy dafa am ñoo xam ne ni làmb ji pour moom mooy loolu quoi am na beneen bët buñ koy xoole te pourtant am na discipline yoo xam ne ñoo fi nekk yoo xam ne la ñuy causé ci ay dégâts di ko def te kenn du ko wax bari ki démb ci mujj souhaité si jàmm mais dem championnat buñ ah Pikine Casa est ce que loolu dégg nga kenn wax ci li fi amoon fii ci stade de Mbour ak Wakaam mais ñaanuñu yàlla yooyu di am parce que bu ñu sañoon boxe baak volleyball baak handball ba ku ci ne da nekk ci sa di ko ci jàmm ñu encadré la loolu moo gën waaw waaye nag école itam du ñu wax ne dañ koy valider parce que école xay na lieu bu ñu yare ay xel di fa jàngee yaa ngi dégg kon dañuy wax état bi rek ñu dimbali mat écrit yi pour ay foo xam ne ni fay jéem di ut di fa entraîner écrit yi tamit ña ko yore di ay président ñoom itam nañu tëral ay politique yoo xam ne ni dañu am ay place yoo xam ne nii seen terrain yu bopp yu ñu moom la ndax nag voilà Rock Énergie fexe nañ ak seen maire ba am seen terrain wu bopp loolu moo jaadu tamit mooy yoon parce que itam ah mbir mu mën a doon nag sunu sama da koo gën a wóoru école bi moom pour jàngale la pour xale yi la waaw. Babacar nag euh, ki nga xam ne mooy Prince Sissoko moo fas yéene Dakar a ga ca jam ñaaju muy profité di nuyu ca Prince ak combat boobu mu taxawal muy caat ak mu jëm muy bu neex. yaakaar naa ku ne seetaanoon nga leen fii lañ jotoon waxante le 4 avril tombale ko concert Pape Diouf loolu di lu am am solo Pape Diouf ñu koy nuyu ndax itam nit koo xam ne nii xool na la ba nga neex mu ne sopp naa la ndax sa liggéey defe naa loolu lu neex la ci man te wax na ma lu mel noonu ay yoon yoon kon ma koy nuyu di nuyu waa génération consciente yëpp rawatina ñoom maxu xam nga ak ñi muy àndal ñëpp ñoom Kécop waaw ak soxnaam bébé baas di wax ne kon daal prince moom pour le 4 moom xam naa kon ah concert lay doon pilis làmb Babacar suñu jógee su Mame dem fi nga xam ne moom mooy record record moom daf euh, si micro si xalima Abou Nour dafa def benn taxaw jàngat nee na Fass daal mi ngi si tournant bu décisif maanaam saison bi daal mooy mën nañ ko tuddee sax benn santacom nee na ki nga xam ne mooy Gris moom am na problème mu combat ki nga xam ne mooy Lac Rose moom taqatul ngeemam ndax problème mu blessure Forza moom si tey mu bëree si ëllëgee du bëre Papa Sow na leen ginnaaw créé ba écurie waaw bu doy doy waar waaw loolu moom dina metti ci ñoom ndax <laughs> waaw parce que Gris fi mu nekk nii adversaire amagu ko la grosse blessure a ko téye Forza euh, régul maanaam régulier ci ni muy bëri Papa Sow dem na ah waaye nag comme li ñuy wax rek wolof ne na am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur de li ci am solo mooy mbër yi ñu la limbal yëpp ku ci ne tey maanaam am nga loo wane si làmb am na ay seen ay rakk nag yu fa ne yoo xam ne nii kon ñooña suñu yeboo ñooña nag ñoo war a fagaruwaat jéem a placé a taxaw taxawaay bi ñi seen mag yi amoon ba li leen dab tey seen carrière dab leen ay xale nga fa yoo xam ne nii ñu ngay jóg ñoom nañu nañu jatu ni soccet ci waajal seen bopp parce que tey Gris Bordeaux amatul lu muy prouver ci làmb pour man parce que ci carrière bu jeex la gën a jegeñ ke ni carrière bu bu bu kii xëy na Lac Rose am na fu ñu ko doon xaar jotu faa yegg ci làmb ndax blessure ñal na yàlla def blessure bu wér ba mu dellusiwaat Forza itam am na foo xam ne ñu ngi ko fay xaar ba ba tey yegg seegu fa ndax li ko gën a causé loolu Abou Ndour wax dëgg la combat yi des naa régulier parce que li muy bëree taxaw ba bëree day xaw yéex daal affaire yooyu Papa Sow it na comme la ñu ci wax sànq rek dem na yeneen bàyyi jàmm moom it fekk mu jëm rek waaw nga xam tamit amoon na ko si muy Tapha Tine Tapha leen lu ma gis daal mooy juróomi adversaire am yi daal jógal si juróomi adversaire yi ñii la mooy ki nga xam ne muy Balla Gaye Eumeu Sène Bombardier euh, ak ki nga xam ne mooy Boy Niang neen daal adversaire yooyu mënu leen mënu mënu jógee te xam du du ak ñoom non dina bëre ak ñoom ay adversaire am potentiel adversaire am lañu. waaw looloo am sax Gris Bordeaux Eumeu Sène Bombardier Balla Gaye de Boy Niang moom adversaire Tapha Tine lañ par A ou ak lu ci mën a xew ñoom ñooñu ay adversaire de taille la ñu ngir moom yaa ngi dégg ndax defante naag moo mook Eumeu seen combat jànq la moo mook Gris waxi noppi dér bi laa ko tuddee mook Boy Niang tamit waaw combat jànq la kon daal li am solo mooy loolu Tapha wax moom dëgg piir la foofu lay adversaire am ne euh, leneen nga ko moom nee na comme ni ñu defoon rek euh, semaine bee paase suñu lamb nee nga Fass rek soo créé sa écurie sa premier combat da nga koy pet dina ko wane si bis ba donc il n'est pas un lutteur mu di Babacar. waaw maanaam nekkul ku ay gaaf ah waaw ay gaaf di baaxul waaye nag dafa am loo xam ne comme yeggaguñ ca dañuy bàyyi ba yegg ca ak jàmm rek comme dafa war a bëri te dañ yëg dañ fi seetloon ci suñu làmb gën ñi fa jóge ñëpp dañu après am ay difficulté yu mel noonu moom nag jàpp na ne loolu mënu ko dal ñun de ñaanaluñu kenn ay difficulté waaye daal li am solo mooy dañuy bàyyi ba bés ba ba arbitre souffle ba ñu bëree ba pare mook Siteu ci la ñuy xam loolu li olof di wax naan fu war ne beneen information toujours sur record bi nga xam ni abu joxe na ko mooy kal kalmanur bi war a bëre ak ki nga xam ne mooy euh, ngel joon te Assane Ndiaye tëggoon ko neen na ginnaaw une semaine nee na Assane daal moom bëreetul ak ki nga xam ne mooy ngel joon bañ ak moo bëreetul ak ngel joon grand daal ne na dootul bëre ngel joon ah loolu day mënee su ci lu bëri maa doon bëre bëreetuma waaye nag comme mbir ya demul jotul a dem CNG ci diggante ñoom ak promoteur ba la yemoon foofu pour combat yàqu fa day yomb waaye xam naa la nekkoon na combat bu amateur yi doon xaar bu amateur yi bëggoon grand nag xaw ma lu nag mi fii nag si duni diggante duni ak salle de musculation foofu daal lay waajalee euh, euh, ki nga xam ne mooy Modou Lo waaw loolu day moom mooy li war a am fi mu nekk nii ne ci duni ak musculation bi du mën a ñàkk ak contact yi force kay combat baa ngi toll ama kay waxuma la duni ak waaye fépp foo xam ne nii jàpp ne bu fa dina am ndam ci entraînement yaakaar naa dana fa dem parce que tamit bés ba mu jëmal rëy te ka mu sóoru itam ah du mbarum como parce que ñu ñëpp rek fu ñu mën a ne si àddina bi xam nga ñëpp ñoom Ndiaga Ndiaye Argentine ak ki nga xam ne nii moom mooy sëñ Baara Kanji fa nga xam ne mooy ca Brésil nuyu tamit ceebu jën bu xarañ loo mu nga ba Brésil maa ngi koy nuyu waa ceebu ceebu jën la tudd de maa ngi koy nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi suivre ak Fallou Sène tamit sama mbokk la Ibrahima Ngom ñu ñëpp ñu ngi Brésil di nuyu Baye Zal Dieng ca Paris ak fu waay mën a nekk di ñu suivre rek waa Allemagne Khadiros Ndiaye waa Côte d'Ivoire waa Maroc xam nga Ziguinchor du ñu fàtte fenn fépp fu Sénégal ne moo xam ci biir réew mi ñu ne la muy Sénégal moo xam Afrique la moo xam Europe la Asie Norvège ñoom dabaax ñëpp nuyu nañ ñëpp ñaanal ñëpp jàmm mais tamit di jaalewaat rek Cédric encore une fois mbokkam boobu yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana di ko jaale fan si club Babacar bi yëpp kum ci mën a doon di kontaan dem ci recevoir bi leen maire Pape Sène recevoir ci bureau ñoom Grand Lay Pape Ndiaye Jiga Cédric ak Pablo di ñaanal ñëpp jàmm di wax que ni Sénégal daal yàlla na yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa